mbokk moo xam ne dafa laaj ak laa biire boo xam ne daa jëm ci lenn ci mbokk yi jigéen yi rawatina ñoom ci dugal seeni photo rek ci internet ala kulli xaal loolu wax nañ ci ba tàyyi moo lu mat a wattandiku la su jaadu ci mbokkum jullit mu jigéen ñuy jël photoom loo xam ne lu am njëriñ gest la moo tax dugal ko ci fa mu ko dugal euh, su boobaa ma si caa bañ a waxtaan waaye da ngay gis benn page Facebook fekk amul dara dara lu mu fa def bu dee ay wax amul lu mu wax a jëriñ nit ñi lu weesu daal jël ay photom rek sànni ko ci biir te kooku chaque nit ci nekk ci ne bari na lool lool lool lii xew ci biir internet ci ay montage ak jëfandikoo yëf yoo xam ne dul noonu du jaaduwul damay wax ne même góor gi sax bëgg a i li ñu tudde suwar mu àbbira nga xam ne dafa am lu mu bëgg wax loo xam ne photo bi mën na wax nit ñi jëriñoo ko su mel noonu ma ne ko jëfandikoo ci anam boobu waaye nag sànni ay photo rek ngir seetaan jàpp ne internet bi fowukaay la boo xam ne album ba ne kër ga nit ñi mën ñëw di ubbi di xool loolu ñu ubbi lu mag a mag a mag la ñàkk a xam internet nag na mu jindoo moo koy waral ba tax na lu mat a war a gis nañ yi lenn ci ay mbokk yoo xam xëy na xër ak bëggul baax moo tax yooyu def ñu jël ay photo di def montage di sànni jëm ci biir Facebook bi euh, loolu nañ ba ci xaaj samay photo man gis ci photo yi waaye ñu yëg ne loolu ci boppam doonul lu jaadu ndax benn nit ki ci boppam wa jaaduwut ngay dugal photom fenn te diisoowoo ci ak moom comme ne la dugalal foofu doo ko doo ca diisoowut ak moom ba nag dugal ko ko kooka seetu tooñ lay doon war nga ba noppi jéggalu ko mu jéggal la ñaareel ba mooy lañ ci boole muy wàllu montage montage moom baaxul ndax wax lu xamul la wala def xam ko bëri lu baax la ci wala def na ci lu leneen kon ay mbir la yoo xam ne yu mat a wattandiku la euh, ñuy ne bokk ñoo ngi ne lépp lu ngeen gis si nit di ko def rek internet bi wala feneen da ngeen di daay feneen lii moom dafa xew kon ñun ñëpp mën nañ ko def déedéet seen comportement dafa war a ànd ak yéen bu ngeen dugg fa fa ànd ak bu ñuy wax internet ñu wax Facebook loolu ay béréb la yoo xam ne su fekkee am na nit ñu koy jëfandikoo di ko foyee it ñi nga xam ne ñooy sax sunna dañ ko war a jëfandikoo ngir loo xam ne lu am njariñ loolu moo ko tax a jóg wax yoo xam ne wax sax wax yi mën a féexal xol la dalal xel ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woon ci ak dundam daanaka waaye lu am njëriñ lay doon lu féexal xol lay doon daana indi lépp comme doon ak xam-xam suñu njëriñ ak dundam a jëriñoo fexeel ba Facebook wala leneen lu nuróog moom bu fees dell ak yu mel noonu bu fekkee ne yu mel noonu amoo ko nag jarul ngay sonn ci jël ay yëf di ko sànni euh, fa am amul njëriñ la waaye doy loolu espace bi ngay liir ci li nga xam ne nit ñaa ngi koy sànni tam doon lu am njëriñ nga di ci njëriñ wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain